la wax al alak Moustapha altine la ñu jëlee leer gi ci ginnaaw baay bi dénk ko yaay bi altine la ñu jëlee leer gi ci biir yaay bi jox ko waa àddina altine la leer gi fer altine la jël jabar altine la yëg giseeg yàlla altine la génn màkk altine la dugg Médinatul Munawara altine la dellu àjjana moo tax ñu tuddee bés bi bésam bésam du isawlaaw naa xayran yaa ñu noon yaa xaay sal baax kon bëgguñu daray Moustapha lëndëm mu ne yépp dina leer nii ma la ko waxee ni lay leere ñu ne ko kon nag fi yow mii xamuñu ko mu ne aha ñu ne waaw mu ne déglu leen ma wax leen luy fi yow mii ñu ne yow la ñuy déglu mu ne naan ma firil leen ko mooy fi yow mi mawlidihi mooy fi yow mi mawlidihi ci bésab ganeb addinaam ba ci la génne addina ci fan fi bayti aisatin ci néegi jabaram bu ñu wax aisa kañ xabla sawal ginnaaw diggi bëccëg jiitu tisbaar si da aji malik na bu ngeen xamul fi yow mi ma firi ko fi yow mi mawlidi mooy bés ba fi bayti aisatin mooy lieu ba xabla sawaal mooy heure ba bi heure mawlidi mooy weer wax xamal ne bi bi Moustapha àggee Madinatul Munawwara réception bi neex lool min ajli zalika gada arxa simaama laha ata tanawaxa tatanawaqa la woon mu asab genn taaj wa ma bi taa ay nit tuddi qad yuqtasar Ibnu Malik wax loolu kasaba yi wax وما بتاع نبتدي قد يقتذر فيه على التاع كتب ابن الحسن فعل بو كومانسي تا تومبي تا بغا تي تابي وات جو مو تاريخو من غا دايلو جن تاج باي بن با موتاخ الاج مالك تاغي جن تا تومبي nde wayi modi min ajli zalika qad arha simama laha atta tatanawaha mu diis mu tegg genn taaj mu rot mu woy ne min ajli dalika qad arxa simama laha ata tanawaxa baaba almasjid al arabi min ajli dalika mooy lan walam yasal qailan mustanzili fi mamuratun saatu usnin sawi mootu suni min ajli dalika nag qad arxa simama laha bina bina yoxos madinatul munawara dafa fekk ñu xal ñaari mbett xasriti yi nekk ci ndeyjoor lawsu yi nekk ci càmmoñ ñu fa fleur yi borom taax yi kaw yi yéeg ci di tuur bong bong ñi di tuur tàndarma am na ñu bari xaalis ba yoon sol benn benn benn benn libi doon penc mu mu dugg nag juróom benn penc am Medina boobu penc bu nekk am na chef de village banni bayaadate banni zaid banni ëyti banni xaadit kenn ku ci nekk bu duggee seen penc balaa ngaa génn nga dogale ko téye nos bi ne ko bu ñuy wax Medina fee tax wàccal fii la gor yi ne fii la jàmbaar yi ne alaaji Malik ne chef de village bu wax loolu na bi géej sene ba tolloo sa nopp am lu mu la déy bu la ko déyee rek dana yalax parka gi dellu ci làng bi giléem ko continuer tàpp mu ngi sol mant bu sonn daana def toujours boo amee victoire nag lu ñuul lay tañ daayoo bot yi lang mu mel ni weer duga ba ni bayaada xaalida yi chef de village bu ne ko nuus ne ko fii la doole yi mi dina ne fii la gor yi ne wàccal na bi langaan am lu mu ko déy mun a yalax dellu ca làng alaaji mari ne lenn bi doon déyee xam naa ko waaw waaw booba commandant d'arme bu ñu wax jibri la jiitu yor benn baton wurusu ngalam di jox na bi sëñ gi leen di siiwal ko ku ne nuus mu ne sawi moo tusa mi maamura gileem gi ci digal la ne bàyyi leen ko mu dox maa doon nag ne min ajli salika tontam lu sax dàkka loola mu tontu ko première deuxième troisième min ajli salika ngir dégg tontam lu sax dàq googu xat arxaa la ñu libéré simaama nos ga laa ñeel gilim mu tempal boppam rek di fóon di temp di fóon rek atatana wax baabal masjid ca fa nara doon bunta ba fii ndem keroog ngay firi ndem keroog ngay firil nga ne ca fa nara doon bunta ba bu dee tey nga ne ca bunta ba fële tëdd wal badru ma allah zuma xat wasabat wasabat zërët baax na jërës baax na ñetti tomb ak raag ñetti tomb si daal maa yi dafa bàyyi luxa bi ngir sa kanal indi saar zaaraat walam taxa xaa walam tanxa warajaat ورجعت وبركت وبركت وجاء ولم يخن كوكو مجاز بعطف جملة الجملة دفع مجاز بعطف الحرف أك مجاز بعرف الكلمة أك مجاز بعرف الجملة أك مجاز بعرف جملة الجملة أمبواي طه سورة طه فقبلت قبضة من آثار الرسول فقبلت قبضة من آثار فرس جبريل الرسول yépp ñu dog ko ci alaaj maa ngi dagg yooyu yépp bàyyi gileem nga ba mu gisee Maodo dafa bañ a du wàcc mun a ñokket dox dellu si waat yéeg ne nañu ikkamatu bi ne ci yës googu dem dellu si yësaat ñaar la première yës gi daf ko ne fay kër gi yàlla wax ne bi diig diigal mu dellu si yësaat ne ko fii lañ lay robit moo tax ci béyti ay isati xam la sawaat yes gu njëkk gi dana kër gaa ngi ne bi di digal pour mu wóor mu jóg wandaalu yesaat ne ko fii it mooy bàmmeel bi fi ngay taxaw ëllëg romb nit ñi yëg nga ne njàpp ma ne bi dugaale woon bàmmeelam moom lay taxaw ëllëg rammoo ko nit ñi du ko yeesal sax afdalul xalqi jumlat benn bango benn ba bi ne bi dogeeg biñ koy suul réeroo am na fa Maodo dina la ko wax léegi réeroo su ndaw soosu mooy jaabante ñaari jaabante yooyu ca keroog ba mu agsi si daal Malick ne xew-xew baa ngi amee fi yow mi mawlidihi bésa ngoog fi bayti aisatin place ngoog xabla sawaal heure ngoog bi seeri mawlidi weer ngoog dañu jékki-jékki rek gileem yi ci Medina yëpp bëmbandoo mbaam yëpp ŋaaxandoo ginaar yëpp sabandoo garab yi def xatatatata xeer yi ro Abdoulaye na doomam da ko fekk tool na ko bàyyam na lu xew de mu ne ko lan mu ne ko rasul génn naa dina léegi la ñu wax mu sànni roto bi fekk mu ngi planté mu sànni roto bi na yàlla xale bii li ma wax bu dee dëgg xaru day araam waaye sama nagi bët yi bu fekkee lu ma xool xoolate du ma gis Moustapha naa gëm ma tey jii fa la fa la silmaxa ba dee xasuwaa gilee moom la woon ba nabi dogee dafiy xëcc di xëcc ba ceen nga dog mu daw dugg ci teen yaa for mbaamam ma lekkatul naanatul ba ni mu ko fekkee Moustapha sallallahu alayhi wasallam si daaj ma dina la wax ak yow loolu léegi ñu ne waaw alaaji Malick ba nabi génn àddina ñaata fan la ci weer bi mu ne ñetti wax lañ ci wax duma tàyyi nag dinaa la indil yépp ba xam li laylatin xiila li laylatin wa xiila li laylayni laylayni xad xalata wa xiila fi ubbihi xaaji Malick ne ne bul yokkat fadhul wala tanami mana li laylatin xad xalat wa qiila laylayni xad xalataa wa qiila hubbi xad xalaw li laylatin xad xalat aw laylayni xad xalataa aw hubbi xad xalaw fadhul wala tanami xaaj Malick nee na yonti yàlla Mohammed mu ngi génn àddina li laylatin ci fan gu jëkk ci weeru gàmm xiila la nag xiila ak xaala xultoo am ci arab xultoo gën a dëggu mooy firi mane xaalaa ci topp mooy mu ne ku la sonal nga wax ki wax xiilaa gën a doye di mooy neef na ah ma dem de li laylatin xat xalat wa qiila laylayni xaada xalata wa qiila fi hub alkubeer huit ba deux sabikutim deux huit plus deux dix plus de douze alsaxar yi bu ko wàññaale damir jaa ngi dellu ci weer wi boo ko calculé daanu waaw am na ñaari wub bii damir ji ci weer wi la dellu bii damir ji ci Moustapha la dellu dafa am kuy ku doon laaj salaatu naariya ak salaatu tuntina bu ci gën a foor mu ne ko naariya day di damir yëpp dellu ci nebee tax ma gën koo sopp te kii damir yëpp dellu ci julli gi waaw waaw moo tax waaw maa ngi dem de xii la am nañu ne maa ngi leen di questionné si nag li laylatin génn guddi xat xala goo xam ne wéy na ci weeru gàmmu la nabi génn àddina ma laaj la kon ñaata fan la feebar ci digg baraxlu wa feebar bi tuuf fukki fan la woon ak ñeent ma ne boo amee benn bés fale dee kon ñaata fan la feebaroon ca weer wa fukk ak ñett du noonu wa qila lay lay nii bu fekkee ca ñaari fan yàlla te fukki fan ak ñeent la feebar kon ñaata fan la feebaroon ca barax lu diggu gàmmu wa nga ne fukk ak ñaar du noonu wa qila am na ñu ne fi wóppi fukki fan yaag ñaar ci la génn àddina kon ñaata fan la feebaroon fee ñaari fan am déet si daxaaj maa li nga ne rikk waay takkal seen digg te bari xiile yi bu mu la tax a yokkat fa gëstul rek gëstul jëndal te nangoo yër bu yàngee nga dajeeg dëkk wax naa la ne xultu ak xaala ak xiila la xiila xultu mooy firi ma ne wax naa ne booboo gën a wér xaala mooy wax na ne wax na ne ku sonnal ki ko wax mu wax ki wax laa wax waaye neef na amul fu mu dëgg ba toujours ci dégg gi daa daal di xam ni fi dëgg gi gën a joy jëm bu leen woy ma ñaxetu ñaar yooyu ngeen woy nu jàll dama bëgg a góor gi dégg yépp juróom-ñeenti bay ta ci def Sidi Hadji Malick ne na fi qawlil ashari wax ji gën a siiw am na jeneen ju am waaye bi gën a siiw laa lay waxal njonti yàlla Muhammad ci diggi guddi ga lañ ko door a rob déglu leen nag foofu bu baax gaa yi fi qawli azhari laa lay wax wax bi gën a siiw yëg nga yëg ne loo gis leneen gis naa ko dama ko waxul wax li gën a wér maw day wax de damay bañ nga yërëf leneen gis feneen leneen lu wuteeg lii ma di la yëgal ne gis naa loolu lii da ko gën a wér kon fi xawlil azhari wax bi gën a wér mooy ana daf na suul jëmmam ju tedd jëmu ngi amee léegi sul arbaha ñu ne ban heure mun a fi jëw fii léegi ci digg guddi yow laay waxal nag li koy fidiri xamal li ma lay nettali wax tekki mii te nga xelañ ba mën koo nettalee ni ma la ko waxe bul woy de ñu ne gaaw a rob mooy sunna ci juróomi yëf rek la ñu bëgg ku gaaw rob néew bu wóoree na dee na ndéem da dafa lap mbaa jaan màtt ko ñoo ñaar bëgguñu ku leen gaaw a rob ku jaan màtt bëgguñu ku ko gaaw a rob ku lap ci géej bëgguñu ku ko gaaw a rob néew boo am budul yooyu ñaar gaaw a rob la ci yoon wax doom ji jigéen ju mët a sëy gaaw a ma ere bor boo leboon ba jekkoo gaaw a fay rek tukki ba sa aajo faju gaaw a ñibbi rek lu tax rasulullahi alaaji maaj dañ lay laaj yaa noonu yaa xaalis bari lu tax nabi santaane gaaw a rob ñu tardeel koo rob mu génnaat den altine ci inaar jekkali ba cëg ba dugg guddik talaata ba bër set mu yendu talaata ba jant so mu dugg guddi ga ba mu xaaj lu waral loolu mu ne ñaari fee xewal yépp ginnaaw bi mu dee la xew fee bu ci nekk dafa am werante werante wu nekk arbitre rek la mu leen attee xam naa billahi premièrement min dahsati deuxièmement istiqaalihi man yi wàlla kalaam rii bi deewul Omar ne na deewul ku ne dee na rek ma rey la dafa dee jéeg yàlla nu Muusaa defoon ba ca gib altine bi loolu la ñu werante ba jant sax ñu d'accord ne dee na ndax Ababacar leen gindi booba mu ngi aye ci séetam bu ñuy wax Abibatu bintu Xaarija guddi ga Ababacar fanaan nii Medina kër bàyyi xale boobu la fanaan keroog la xale boobu juddu nga xam jigéen a gaaw màgg bi ne bi dem àllaaxira mu ngi koy céetale moom bi muy dem àllaaxira mu ngi ko bàyyi mu ëmb doom bu jigéen la wasin ginnaaw mu ummukal soog la tudd aaxaro tardeel nañu daf na na bii sol ju moom ju tedd ja min dexsateen ngir tarug ngëlëmte jaabante googu giléem nga defoon moo leen dal bañ paree nag werante fuñ koy suul alaaj maa dina ko waxaat ngëmmente dal na ñoom ñëpp ci néeg ba fañ doon werantee ku ne gëmmentu nga ba jey ni ñu koy defee ca xabru ba am jëmm ju aatif ca kaw ne bu leen ko sang ku am sobe la ñuy sang kii laap na ba mu juddoo gaa yi d'accord bëgg koo jullee jeneen jëmm aatif ne man a xadir maa leen di ndokke maa leen di jaale si sanga leen ko sanga sobe taxul sunna la ki jëkkoon di wax ak yéen iblis saay saay bi la li doo rëwal bëti ko sang eh utul ndox utul ndéem utul tàngaay alaaji maalik kat dina la wax ki sanga na bi dina wax ki doon ragg dina wax teen biñ ko roote dina wax malaan yiñ ko sànge dëkk bañ ko ràbbe dina wax it pénc mañ ko ràbbe dina wax kulóori malaan yi waaw ma ne niw bu dëggoo lu ca def bu dee bu dee gi dëggoo lu def waaw kon ñu ne ko nag yow la ñuy déglu si daay ji Malick mu ne lan wa dafni kaana alxulfu yaa lahumo ala firaqi abibin farijil amami la ilaha illa allah kaana amaat na ngay wax kaana amaat na te gaa yaag seen niiw ba lu amaat xul fu yoren teeti ci lan ak lan si mi ne fi xuuf li ci sang ku koy sang wa daf ni booba fu ñu koy wore d'accord nañu génn naa dina waajale def réeroo amaat na sidaaji Malik ne na xam naa réeroo ba lan laak lanati xam naa ka leen jindiiti ba ñu tegu ciw yoon kon da ngay firi ne kaana amaat na ñu ne moo si lu am mu ne xul fu uuteeti ñu ne ci lan ak lan mu ne fi xus li ci sang ak kuy sang wa daf nekk rob ak fuñ koy rob daal di ci teg ne yàlla humoo ay ndeysaan ay ndeysaan jëmi ci gaa yi ñu ne moo si loo leen di yërëmi mu ne ala firaaqi abibin tàggoo gi ñu ne la tàggoo soppi bi tey far yëliñ Ababacar moo leen ne wax na ma ba tàyyi ne yónnante duñ ko toxal fu mu dee lañ koy robe yëkkati leen lalu ndaw si gas foofu pax ñu suul ko fi wax na may tiwéet ne bés bu ma dee na ma samay bokk sang ñi ma gën a jege bu ma kenn summi nag te it nañ gëm buñ ci yem nañ takk seen bët ku gis ci man cër bu ma neexul daal silmax waali xolli boo abaz wabnaahu fadlu zaani bil xutub Alioune Kaay xam nga lu Alioune bokk nekk seen ñaari bàyyi ngi bëtam yii mu ngi fekk mu taa ndox daf ko dëtëb naan ko mu dàqale am na ñu ne sax ubbeeku gu réy gi ca ndox mooma mu naan waaw sa waaj kooku du mbokkam abata yéen ñaari doom yu góor kii faddalu lañ koy wax kii xuusam si daal ji Malick ne wa ay dorul aliyu bun abi taalib waalin moom méngoo woon xas la woo joon jabe waaye sottiwul ndox de waaye am na sotalu bu ko topp nag ñu ne ak kan mu ne wa abbas abbas wopp naawam ñaari doom yi xoolli bu xoo ñoo doon wëlbati ko te bu set bu ne ñu ne ñaar doom ñu xamuna tur yi mun a bal faddalu ñu ne ñaar nga waxoon mun a saa ñu ñaaree la ko bi xusum alaaji Malik amul kenn ku ñuy sang te kenn sottiwul ndox raggkat nga wax ak wëlbatikat mun a ndox sottikatu ndox ngeen bëgg a xam ñu ne waaw mun a yusuf bi ma haadi usama am déet ma zokkoraan wallaw su ma doodun bi jam iimi yusuf doon na sotti usaamatu usaama almaa a ndox ma ala aadi ci kaw nabi toppa loxo ba rek àlluy ragg ku set ñett ñooñu wëlbati abbas a tolloog ndigg li ku sem ca tànk ya fëddalu ca bopp ba fu set ñu tourné àlluy ragg waa jooñu usaama di sotti ndox ñu ne bu jeexee ku koy jox mun a soqoraan jaami nabi la woon moo ko doon jotti maa ngi laa yëgal nag nag man alaaji malik mu tëdd jóg wala zu ñu ne ah mu ne mahdurun bi jam ihimi nii buñ koy sang ku deful dara waru la faa toog te law su alaaji maa ngi tudd la gën service bu mu def te service yi jeex na tudd ñu raggkata kan la aliin tudd ñu wëlbakat wëlbatikat kan la abbas ak ñaari doomam tudd ñu sottikati ndoxa kan la ulama ku ko ko jottali zoxraan mu ne nag wallaw su yëkkati mubtada pour séparer leen ñu ne waaw si mu ne yëkkati mubtada pour séparer leen ñu ne waaw si mu ne maxdoodun dañ ko limaale woon bi jam ihimi ca mbooloo ma san service lu jur loolu mooy Medina daje ne leen dëgg-dëgg néeg ngeen góor gi nu bokk ko yéen ba mu dee ngeen nanga ko sanga yéen waa Makka rek du ngeen di mosal kenn ku bokk ci lansaar mu bokk ci ñooy leen réunion leen délégué kenn mu fekke waaye du liggéey de ñu ne waaw ñu délégué lawsu mu ñëw waaye deful woon service ñu lawsu noonu lañ ko délégué ba ba ñuy robit dem na waaye amul benn service daf ci taxawal medinatul munawara moom doo nga bokkul ci ñu waajal ne bi te bokkul mu bokkul ci ci ci mu waajal ñu nabi am na fukki première ak ñaar Ababacar jël fukki deuxième ak ñaar. Ndiaye. l'islam. l'islam nabi première Ababacar bi